cocktail molotov yoy existé wul y yi une ben cocktail molotov créé xamuñu sax nu cocktail molotov cocktail molotov yooyu ñing ko à la cité cap Verdienne derrière le parti socialiste wetu Colobane fofu lañ défé cocktail molotov Ben ben policier moko def cocktail molotov encore une fois amul te cocktail molotov yoy nonu amul existé ben policier bu nek sûreté urbaine bu def deux ans ci police deux ans ñu affecté ko urbaine mo défar lolu mi ngi ko à la cité verdienne derrière le parti socialiste vous lañ défaré lolu ci ci ab chambre ab chambre lañ wut ci ay wut morceau wut essence ñom ñoko photo ñoko def ñoo ne dañ ko sax ñoo ne ñu ne ko doon a ñoko def photo photo boy ñoko défar lan motax japp ñu kenn booy ñoo defar cocktail molotov lan moo tax jàpp ñu benn booy ak cocktail molotov est-ce que gis ngeen kenn kuñ jàpp ni mu téye cocktail molotov photo wu ci est-ce kenn kuñ jàpp muy defar cocktail molotov déedéet ñoom benn policier kese moo dajale butéel yi wut morso wut almet wut essence te rek nii nii xool tak tak tak photo photo surtout Cap Verdien laa la wax tak tak tak tak photo génn <laughs> mi ngi nii cocktail molotov yaa ngi nii dañ doon préparé door ay bomb ay missile lañ doon envoyé ay bopp foofu cité Cap Verdien bopp kese foofu lañ ko defaree benn policier ko defar benn moo ko defar moo ko foto moo ko monté moo ko moo ko moo ko génne ñu ne loolu ñoom ko defar moo ko foto moo ko monté moo ko génne ña defar kenn fotowu wu fa ña ko defar xamuñu fa kenn dëkku fa kenn ci ñoom dëkku fa du adresse kenn ci ñoom du néegu kenn cocktail molotov yooyu léegi moom fu ñu ko defaree kan moo fa dëkk. kan moo dajale butéel yi koo fa dëkk kan kenn dëkku fa ñun jàpp ñëpp kenn dëkkul foofu kenn dëkku fa boobu foofu noonu foofu ñu defaree loolu foofu noonu ñoom ñoo ko def un policier moo ko defar ak ay astuce am te ko sax mu xamu xamul sax nuñ ko defaree parce que mënu ko defar moo wut ay butéelam wut ay morsoom wut almetam wut essence am wut ay ñama-ñama tosam dóor photo yi indi ñu ne mi ngi nii ñoom ñoo ko defar ñoom ñoo waaw point point loolu mooy force spéciale force spéciale ay maire Amidia ay cordonnier ay tailleur ay lafañ ay boy yu wirul ay ñu feebar ay ñuy jalisé wu ay simple citoyen ñu amul doole ñu ci kili ay ñu ay ñu ñu naan engin militaire commando <laughs> ay Akhenaton bi nga xam ne dafa làgg wow lot ñu Akhenaton mooy cerveau bi ak nangam dañ ko nañ ko nañ ko rëbbul international nañ ko nañ ko wër international jàpp ko lépp film lépp dara amu ci dara dara amu dara. déglu leen dara amu ci dara dara tous rien dara ci lii de mooy dossier bi lii yaa ma dañuy exploser centrale dañuy bombarder rek ñoo xam ne mënuñu exploser loo sax benn bouteille coca booy jëlal booy nga jox leen benn bouteille koka nii nga jox leen ñu ko exploser loo ñoo ay bu doon force spéciale nga jël ay ponkal sax ay kaay yi force spéciale américain yi nga xool heure bi ta tak tak dugg nga nga jël ay feebar ak ne toll na ngi woow kong kong kong kong kong xool yeneen boo Ousmane Seck nga woow kong naan nii la tax ñu ñaka ay ñu feebar ay amidia mère bu mère mère ay mère de famille yor njabootam sonn ñu ñëw ci ñun daal xool xool ay ab ab lafeñ boo xam ne tailleur la ñu eh yow ci nga bokk benn ngaana yow ci nga bokk ñoom daal xool ay benn dof yow ci nga bokk ñun daal dañoo for rek dañoo loolu mooy force spéciale kenn numéro force spéciale kenn newu ci xoolal ku parce que François n'est qu'une force spéciale donc force spéciale amul kenn ku Qui kuy jàllise cordonnier bijoutier tailleur bu lafeñ booy yurul ñu feebar ñiy jàllise ñi amuñu doole ñi woo Congo ci kili lañ dajale ñooy force spéciale ñoo ñu doon exploser Sénégal ma nga noonu sama gars <laughs> mi ngi nii dara tous ñebe muy but buti ñii dañoo doon exploser loo ay central ay central ay central ay comme ni ñuy defee rek sale boulot saa yi ñu defee yëfu imbécile jox observateur mu distee mu tasaare laa ilaha illallah force spéciale ay bomb li doon dóor allahu akbar ay terroriste ñoo duggoon fii force spéciale central ba cap des bis lañ doon explosé laa ilaha illallah bis ya bomb ya ah doy doy doy loolu observateur lañ koy la ñuy dox GFM sal bu la ñoom lu ñu liggéey lu salte jox GFM ne nax leen gaa ya lii la la lii kese la lii lii bismillah allah akubar force spéciale yi ñoo leen ci dëkk mi ngi tudd Ousmane Seck kii Pape Mamadou Seck kii Ablaye Seck kii Cheikh Seck kii Mor Seck kii Ablaye Ndiaye kii oh dañ ne leen rey waay lay la gars yi di lu fa force spéciale ñu ñëw ay ami ja ben maire bu màgget bu yor ay njabotam ndaysan maire maire de famille ñu dem japp ko ami ja yow da nga bok ci for spécial mu leen ami ja fekke wu réunion demul réunion xam nga ami ja lan moo lan mo neewon liggéey mom da doon dajale xaaliss ben yon la envoyer ben boy bu nekk ci biir ko wérut comme ni ma ko waxee moor jox ko xaalis pour lu doon jëndee ay ndox ak lu doon defee lu ñuy organiser lu ñuy jëndee ndox ak quelques transports pour yenn élément yi pour ay drain ay bus ku ñu ñëw ci marché bi jeex na li force spéciale mor momu ah, euh, amidia ben yon lako envoyé khalis té du dara pour ñu lu ñu jëndé ay sachet ndox kese billahi wallahi ak lu ñu joxé transport ñen élément yi ñu bëggon ñëw pour marché pour pour pour manifestation bi jeex na lii amidia li de la li billahi wallahi li kessa li li ñu amidia japp ko xam mi ay domam ndaysan li jàpp ay bu doon jàpp ay ponkal sama gars yi force spéciale dañuy teene gars mais xam nga lan mooy force spéciale force spéciale dañuy taxaw force spéciale dañuy wér mais force spéciale américain bi mais il faut pas jouer avec les mots gis nga nañu tey force force ay boy boy na ngay jëlee ku nekk ci pousse pousse benn tailleur buy pousse nii pousse nga jàpp ko ne force spéciale yanu ko seize am seize roulantam jàpp ko ne force spéciale

des forces spéciales jeex na film bi loolu la tàmbalee loolu la jeexee donc euh, sachez que loolu mooy film bi et that's what's up yeesaay xaar ma ñëw féexlu fii tuuti mais loolu mooy force spéciale bi ah c'était juste sa force spéciale et puis il y a rien encore amul amul leneen lu ci nekk ah, parce que loolu rek la donc euh, dites-vous bien que gis nga affaire bi c'est fini lii la wax ji bëri ji yëpp coow lu bëri ji yëpp lii la y a rien c'est l'homme qui a peur, mais bon, il n'y a rien, il n'y a, a, rien, c'est un dossier vide. Mais non, Ousmane Sonko l'a donné Djema Diop, Ousmane Sonko l'a donné Djema Diop, film c'était Ousmane Sonko. Malheureusement, Ousmane Sonko n'a absolument rien à voir de la chose. Essayez, essayez, réussirul. Donc, euh, ce dossier est tombé à l'eau. Donc, nous avons été il faut vous le gouvernement Abila avec GFM. Le gouvernement Abila avec GFM. ak média corrompu yi point ñoo ko film ñoo ko monté ñoo ñoo génne ñoo jàppaat ñoo ci rey doomu jàmbur yax na François Mancabou n'a absolument rien à voir des forces spéciales force spéciale itam existé wul du dara benn groupe whatsapp la woon point amul bandi amul militaire amul reykatu amul criminel tout est faux tout est faux du début à la fin faux kon nag sama yi ñu fanaan ak jàmm et à bientôt pour dossier bu fi nek muy bu fenn wala bu deggu dinañ ko ko amul dara dara dara dara dara donc bientôt di am ak ak fi am voyage en Chine euh, en Inde ñan la son voyage en Inde ñan la du même doyen des juges àndoon nag Mansour Faye boo leen seetloo Mansour bu muy dem dañ ne seen doyen des juges dafa nekk en vacance il était avec bépp tapet képp ku ragal Ousmane Sonko ànd nga ak Mansour Faye ngeen dem ci India di xërëm te rek mu neex réew mee neex liste balaa yor ah maa xam jàllong ci woon bépp tapet képp kuy xeex Ousmane Sonko te ragal ko képp kuy calculer ànd nga ak Euh, euh, euh, Mansour Faye moo nekkoon ca kat ba ñoom ñëpp même seen doyen des juges ma nga ca woon waaw maa xam loo looy def loola fa doon def maa xam maa xam nga jël un mois de vacances en tant que doyen des juges ànd ak Mansour Faye dem di xërëmi ji tàppet yëpp képp ku nga xam ni délégation lañ defoon képp ku ragal Ousmane Sonko képp kuy calculer Ousmane Sonko yaa ngi woon ci délégation avion bu fees dell amoon na ay directeur amoon na ay PDG ña nga feesoon dell dell dell ci avion ba ànd ak Mansour Faye dem ca xërëm yë dem ca jalan ya dem ci voodu ya moom nag bokk na ci kenn ku ma leen di dóor tey avant maa avancé maa xam jàllo ma nga woon ci biir ñibbisi na nag takk na ci rëpp rëpp rëpp am na keneen ku ma leen doon wax naan gisatuma la de gisatuma la Niang ma nga ci biir Badio Camara seetlu wu leen nee naa leen marquage à la culotte maa ngi ko topp Badio benn moment gisatuma ko këram ñëwatul fa dé ma ne leen Badio say na Badio say na Badio gis naa ko ci liste ba ñu àndoon nag Mansour Faye Badio nga woon indi waay di xërëm di xërëm di xërëm di voodu di takk di takk di teggi ñoom ñëpp kon nag boobu tam dossier boobu dinaa leen ko indil bëriwul nag affaire de xërëm la woon ay ñoom Badio Camara ay Maham Diallo ñëpp ñu ragaloon ragal Ousmane Sonko ñu koy calculer ñu amul fit song ko ñëpp àndoon nañu Mansour Faye ñu demoon Inde xërëmtu ji ñu demoon Inde defi Jalan ñu demoon Inde defi Vóoru ña nga noonu kon nag dëkk ba tàkk na jëppeet one love man maa fi jaaroon Mollah Morgun à bientôt incha allah